les gens mais ils vont pas réussir mhm. parce que nit ñi dégg Ousmane koo wax démb mhm. xam nañu lan moo tax Ousmane wax mhm. dañoo jël benn njabo ay njabootam dóor leen i jaase jël ay njabootam tuutal leen ay njabootam humilier leen te pourtant ñoom ñu ëpp doole ci réew mi mënoon nañ ko fajal seen bopp mais il toujours il a été légaliste jusqu'à la fin parce que mënoon nañoo rek toog def peut-être ni ko Abbas defee woon. Mhm. ne suba kuy ñëw indi leen ay jaasi indi nangam mais Abbas sax bi mu waxee loolu génn na kii. ni dafa juum génn na dafa juum. Mhm. mais démb moom la mu wax moom c'est très claire donc c'est au ministre de l'intérieur. Mhm. de vraiment prendre les devants. mais ak nu mu munti doon devant des irresponsables alaaji. on peut jamais. tout prévoir. alors maa ngi lay junj léegi euh, mm-hmm. euh, euh, ci mm-hmm. page Facebook moom aussi nee si la police n'arrête pas Barthélémy et Assane Diouf nous les arrêterons ce sera de la légitime défense. Mm-hmm. est-ce que tey jii xaar nga ci li nga xam ne nag moo di moo di fayantoo mais aussi damaa gis réaction ki nga xam ne nag moo di Guy Marie moom aussi ci page Facebook mu def benn réaction boo xam ni c'est intéressant et je pense bien que peut moom comprendre na. bu baax a baax li nga xam ne nag moo di enjeu bi ak li Guy Marius Sagna li Barthélémy Dias excusez-moi di di di chercher si li nga xam ne nag moo di élection yi moom dafa def ci page Facebook amu ni ma vengeance sera le jour des élections législatives dans les mhm. urnes. Mhm. Le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Justice n'ont qu'à faire leur job en route euh, pour une victoire éclatante. maanaam mhm. moom cherché wul di fayantoo moom lu mu bëgg mooy vengeance am mi ngi ko jëlee ci li nga xam nag moo di ci biir euh, urne yi. jour bi nga xam ne moom mooy jour jour élection yi nan nga jàngatee réaction ki nga xam ne moo di Barthélémy Dias ak euh, bu Waly Diouf Bodian. xam nga dafa am ñaar. non Guy Marius Sagna ak bu kii. Waly Diouf Bodiang ak bu <laughs> Waly Diouf Bodiang xam nga dafa am ñaar dafa am ñoo xamante ne fu mu toll nii. Uh-huh. Pastef ñoom ñooy combattant yi. Uh-huh. am ñi nga xamante ne ñoom ñooy vraiment euh, ñiy seral. Uh-huh. ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy appelé ci jàmm. parce que xam nañu ne bu ñu ñëwee ba toll fii. bu dee leer nañu ne dañuy gagné élection yi bu ñu wuyu gars yi ci violence. moom la Guy Marius Sagna di wax noonu. saa Guy di ragal de. moom la loolu laa wax no no moom mooy xam nga même boo newul ragal. Mhm. pour wane ne li la violence bi di yàqal boo leen ci fekkisee. Mhm. moom mooy ëpp. bu ñu leen ci fekkisee ba tax ñun élection du am le euh, le 17. Mhm. ñun ñooy perdre parce que ñun ñoo war a gagner ñun ñoo war a ut assemblée nationale ñun ñoo war a ut majorité ñun ñoo war a dem gouverner ñun ñoo war a nangam borom caq du xeex ak boroom fetel boo borom caq du xeex ak borom baatu neen. Mhm. xam moom Guy Marius il parle sous euh, cet angle. Mhm. pour wan gars yi ne violence bi ñuy dem jaru ko quoi. Mhm. jarut loolu léegi Waly Diouf moom il est dans son rôle. le responsable de de la sécurité de Pastef. Euh, l' autre là. Euh, Fadilou Keita il est aussi dans son rôle. c' est le responsable du c' le directeur de campagne de Pastef. parce que yow bu dee yow yaay responsable lu sécurité. war nga vraiment ñi nga xamante ne ñoom ñooy say militant nga mën leen a sécuriser. kon lépp lu leen di lor war nga cee jóg taxaw. que ça soit le ministre de l'intérieur wala keneen ak keneen ak keneen. bu amee kenn koo xamante ne da leen di ñoo lor ngeen organiser wu pour dal ci kawam. Euh, Guy Marius Sagna li mu wax man sax peut-être man foofu laay gën a rejoindre. parce que booy xool. violence bi. kan lay amal njëriñ mhm. ci kan lay am njëriñ fu mu toll nii kan moo ko soxla c'est ça la question à se poser kan moo soxla li nga xamante ne moom moo di violence bii di am mhm. mais c'est juste ñi nga xamante ne leer na leen dañuy perdre mhm. mais violence bi kat moo ko soxla mooy ñi nga xamante ne leer na leen ne amuñu programme. te depuis le début waxuñu programme. depuis le début waxuñu benn programme waxuñu benn ligne de leur programme. depuis le début leur leur tête de liste est restée là à nous que man du ma wax programme. Mhm. ñu chaque jour fu ma dem ñu ngi may laaj waxal programme waxal programme mais damay toog di leen wax diw fen na fen na fen na. Mhm. mais koo xamante ne amoo programme te war a dem ci ay élections présent woo lu dul ci seize départements mhm. mais yow bu dee violence am na ba ñu ne élections yi amul kan lay arranger. léegi nag l' de la violence c' boo xamante ne seen est l'arme de vraiment des défaitistes mhm. ñi nga xamante ne leer na leen ne bu ñu demee ci élection yi ñu wulli ñu ba ñu nooy mhm. ñoom ñooy utiliser boobu les violences léegi nag ñoom am na ku ñu interpellé mhm. ka ñu interpellé mooy le ministre de l' intérieur ils l'ont interpellé et man je leur demanderai vraiment de le laisser faire son travail yaa ngi may dégg. Uh-huh. Ousmane Sonko l'a interpellé en tant que candidat. Uh-huh. du PASTEF. man je leur demanderai de leur laisser faire son travail. Uh-huh. et de pas trouver ñii nii ci terrain wu li nga xamante ne moom lañ leen di woo. mooy terrain violence bi. parce que amut sens boo leen fekkee ci terrain wu violence bi. ñoom lay arrangé. mais nag ñàkk leen a fekk si ça veut pas dire que. nga toog di xool ñu lay rey bu rey jotee. Mhm. nga toog di xool ñu lay dóor ngay naan sa sama nangam. Mhm. fekk attaqué wuñu la. bu mhm. leen attaqué. exactement vengeance tamit jaru ko. parce que on a vraiment des justice une justice fii. am nañu ñoo xamante ne ñoom la ñu jox loolu kon jarul dem di venger wu. les plaintes doivent être déposées euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor yoon def seen liggéey. la ca des ñu bàyyi ko euh, ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo. yor loolu muy ministre de l'intérieur ak yooyu. Mhm. comme ñoom interpellé nañu ministre de l'intérieur mais l'essentiel mooy bu leen tooñ waaye ku leen tooñ dal leen ci kawam. Mhm. pour rejoindre Waly Diouf Bodian bu leen tooñ kenn. Mhm. bu leen tooñ sax moo wartee exister man loolu laay wax tooñ warut exister. tooñ warut am parce que bu ñu ñëwee ci euh, euh, plan boo xamante ne wala ñëw ci euh, milieu boo xamante ne c'est. c'est un débat d'idées mhm. c'est un débat d'intellectuel euh, ay xalaat la ak ay xeltu yuy génn ci xelu nit ñi mhm. foofu violence amu fa amu fa place tooñ amu fa place léegi ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pastef mhm. woo nañu seen woo nañu ministre de l'intérieur pour mu ardu ci lii gis nañu ne depuis loo depuis hier des interpellations sont sont en ak affaire yooyu nañu ko bàyyi mu def liggéeyam ñoom ñu dem defi seen campagne fekk kenn attaqué wu leen seen yoon bu mu ci nekk parce que ils ont une élection à faire. Mhm. et c'est juste le dimanche dimanche yàggatul. dinañu xam kan moo mën moromam. alors euh, fii ak euh, ak ak dimanche est-ce que yaakaaroon ne aussi euh, mbir mi du xaw a gën a compliqué fii ci biir Ndakaaru <coughs> ndax Ousmane ko tey mi ngi waajal caravane am dooree ko fii nga xam nag moo di école normale dugg biir Baobab waaye aussi ci ay xibaar ba tey est-ce que dina dem Baobab. waaw maa ngi maa ngi gis seen seen seen affiche bi léegi bijou bu fekkee bu fekkee mën nga ma ko mën nga ma ko génneel. Mhm. léegi léegi nii ñu ngi ko ñu ngi koy def di ñu xamal ni carrément bu 15 heures jotee si xam nag moo di seen départ fii ci euh, rond-point Ecole Normale voilà mi ngi nii euh, grande caravane de Dakar avec le président Ousmane Sonko mardi 12 euh, novembre rendez-vous 15 heures école point Ecole Ecole donc tey jii lii si bu fekkee jotaguñu jël li nga xam ne nag moo di les devants pour ministre de l'Intérieur bi nga doon wax léegi est-ce que yaakaaroon ni mbirum Dakar moom fii dina xaw a dina xaw a compliqué tuuti. warut compliqué. Mhm. fii abut lu fi war a compliqué. Mhm. yaa ngi may dégg. fii ku mu neex dem fu la neex. Uh-huh. ku mu neex campagne fu la neex Barthélemy bu ko neexee campagne yi cité kër góor gi. Uh-huh. Anta Babacar bu ko neexee campagne yi. Uh-huh. parcelle fii ku mu neex dem fu la neex. y' a une personne qui doit être là pour wax ne diw fekk leen ma nangam wala bu ngeen ñëwee maa ngi leen di xaar. wala nangam bu ngeen ma nangam fii one est période de campagne ku mu neex dem fu la neex. ku mu neex campagne yi fu la neex. amut lieu boo xamante ne diw moo ko moom amut titre foncier amut amut diw amut nangam amut dara. Hmm, campagne moom fu waay neex dem. fu mu waay neex dem. loolu mooy campagne durant vingt et jours fu waay neex dem. fu hmm. neex wax mais l'essentiel booy foo demee fenn bu fa tooñ. Hmm. boo demee fenn bu fa provoqué. ñoom ñii di dem baobab bu dee dañuy dem baobab bu ñu demee bu ñu fa tooñ kenn. ndax bu ñu fa tooñee tam ñoom ñoo tooñ. waa Pastef bu ñuy dem baobab wala bu ñuy dem buntu kër Barthélemy bu leen neexee dem fa. waaye bu ñu fa tooñ ñoom it parce que la foule personne ne peut la gérer. mun nga fa dem Ousmane Sonko mun na wax booyi kaay leen ñu dem mais bu ñu demee moom si boppam mënut contrôler ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay nekk. Mhm. parce que ñi nga xamante ne dañuy gàmm ak ñiy raas dem c'est pas pareil. Mhm. bokkuñu. waaye l'essentiel mooy fii amul sens interdit pour personne on est en période de campagne Ousmane Sonko fu ko neex dem. fu ko neex dem campagne yi amul ay affaire da ngay dem parce que violence dafay am wala violence nangam violence moo warta am. et c'est pas une personne boo xamante ne wala y a une personne boo xamante ne. ñii am nañu droit ñu sonkoriser leen. Mhm. mais moom nit ñi amuñu droit sonkoriser ko parce que moom mooy kan. Mhm. parce que moom mooy moom mooy lan. vraiment. mais tu es une personne politique comme toutes les autres. Mmh. vraiment une personne comme comme toutes les autres personnes. saa li ñu la sant lenn la. waxalal nit ñi programme. waxalal nit ñi gis-gis. waxalal nit ñi vision. mais pas nga nekk fi di jaay Rambo wala di jaay Arnold Schwarzenegger wala di jaay. Jet wala Jackie Chan. chaque jour di woon gars yi ne man maa leen ëpp fit man man maa leen dàq nangam man maa leen dàq rayante man maa leen dàq nangam. Uh-huh. mais l' affaire c' est pas uh-huh. affaire bi du foofu. affaire bu dee am nga programme ñi ministre de sax da leen war a xaw ma le reste moo xaw ma kat moo leen dañ leen war a sax convoqué. Uh-huh. bu ñu leen convoqué ñu ñëw ñu leen yéen yéen la mooy seen programme bu ñu am programme yi tëj leen kaso. <laughs> non yàlla xam na ko. parce que mënoo am programme amoo benn programme sa programme yi Ousmane Sonko day fenn la ba pare bëgg fàtt nit ñi. bëgg dem élection. ba pare bëgg dem élection. loolu moom c'est impossible. man Amadou Ba sax xanaa Amadou Ba sax. Mhm. ak lu mu dee dee dee Amadou am na programme mhm. fu mu dem moom waxu fa kenn mais day tontu wax programme mhm. Tayru bi ñuy wax lu mu dee dee dee même chose. Thierno Alassane Sall sax xanaa lu mu dee dee dee même chose. mais ngeen nekk fi benn parti yéen. seen combat lenn la mooy diw day fen amu leen programme amu leen absolument rien du tout. Uh-huh. mais saa yi dañ leen war a convoquer ba ngeen ñëw ñu tëj leen parce que amu programme ba pare bëgg fatt nit ñi. Uh-huh. Ousmane nag fu ko neex dem waaw ah, fu ko neex mu dem. Uh-huh. waaye ñoom it bu ñu demee bu ñu tooñ kenn bu ñu tooñ. kenn. je répète ça encore. très important. Uh-huh. alors euh, Vito dañuy ñëw ci ci ci kaawu euh, Doro Doro Doro euh, uh-huh. actuellement ñu ngi xamal ni mbir moom dina gën a ngi bëgg a compliqué ci li nga xam ne nag moo di ci ci ci wetam nu koy toppee li nga xam ne nag moo di escroquerie dox ci digganteem ak ki nga xam ne nag moo di Zakirullah Sow pour un montant de de.